Sonko nee na Sonko mooy Jomaay jaajëf Yacine Seck nee na kontaan kontaanati naa jaajëf waay Massène Diouk ah. merci à tout masin Diouk depuis Cameroun merci jaajëf waay merci beaucoup kontaan nañ bu baax Gloria maa ngi lay bëggee bu baax a baax Serigne Baneex Sesaay maa ngi lay bëggee Sénégal Negro nee na Jomaay rek jëf waay waaw waaw waaw kama gars yi ñu taaxir tuuti rek gars yi dafa mel ni pare nañ de waaw gars yi dafa mel ni pare nañ si julli bi nag dafa mel ni pare nañ si julli gi sama gars yi waaw Seydina Dramé waaw maa ngi lay bëggee bu baax nee na il faut les wa Seydina Dramé loo xew Seydina Dramé Omar Omar Thiam nee na Sénégal day baax Afda Sonko Seydina Dramé nee na il faut les leaders game Dakar dëgg la Seydina Fall maa ngi lay bëggee bu baax a baax Dame Demba Gueye maa ngi lay bu baax a baax a baax Conceptuel TV laala na ma ay kër bëggee naa leen bu baax a baax a baax sama gars yi Souleymane Diouf Walf nee na merci Sonko rek yaa jaajëf waay borom baax nee na waa foofu mbaa tàngul waa tàng na tuuti rek tuuti rek tuuti rek ñu koy gérer ko Abdou Ngom maa ngi lay bëggee bu baax a baax si di président Diomaye mooy Sonko kontaan nañ depuis Brésil waaw pare nañ de sama gars yi ñu xaar tuuti. waaw ñu xaar tuuti waaye ñu xaar tuuti gaa yi julli ba pare takk dàll yi bu ko defee ñu ñu teg si brique waaw takk dàll yi ñu daal di si teg brique sama gars yi kontaan naa si yéen As Baye Couture nee na Sonko merci Abdou Ngom laala na ma ay kër Massène Diouf maa ngi lay bëggee Souleymane Diouf Walf maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax jaajëf waaye Omar Thioune maa ngi lay bëggee bu baax a baax nee na carte rek waa carte rek Abdourahmane Lo nee na jomaay du <laughs> du dara <laughs> Fallou Fall maa ngi lay bëggee nee na Sonko et eh, eh, Diomaye libre ce soir aha ah, yaa joxe information boobu yow Fallou Fall waaw baax na dañ si xam dara incha allah rabi waaw léegi may la ñu tuuti rek waaw Omar Thioune maa ngi lay bëggee nee na carte yi waaw waaw Ngan Demba Thiam nee na u où Sangalkam ñu ngi Sangalkam sama gars waaw waaw léegi léegi xaar leen ñu génn xaar leen ñu génn sama gaay yi waaw waaw Cheikhou Cheikhuma Diakhaté maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax. nee na bon ramadan jaajëf waay libaas maa ngi lay bëggee bu baax libaas kontaan naa ci yow bu baax a baax kii kala rien que du foot jaajëf waay jaajëf kontaan nañu Alioune Camara merci jàmbaar jaajëf Gloria maa ngi lay ziar bu a baax gars yi bëggee naa bëggee naa leen de barki rasulaay sama gars moom kontaan naa quoi barki rasulaay maa ngi gis commentaire yëpp yëpp yëpp yëpp waaw mu ngi nice gars yi mu ngi nice sama gars yi mu ngi nice dinañ ko fexe assuré comme sa ñu jox leen lépp insha allahu rabbi waaw amin ya rabbi amin amin amin amin Pape Pape Abdou Ba maa ngi lay bëggee nee na cool waaw waaw kii Moussa Kalaamu la maa lay bëggee bu baax a baax Cheikhou ma Jaxate jaajëf waay jaajëf waay waaw waaw ñu commencé ñu continuer liggéey bi sama gars yi ñu continuer liggéey bi sama gars yi bi da si am solo sama gars yi partagé bi sama gars yi waaw waaw waaw direction station waaw ak Sonko président rek ànd ceeg le maire de la commune de Sangalkam di Alpha Bokar Xuma l'espoir de la jeunesse l'espoir de la commune de Sangalkam le premier magistrat de la commune de Sangalkam le plus jeune maire de l'histoire de la commune de Sangalkam l'un des meilleurs maires du Sénégal Alpha Bokar Xuma mu ngi noonu sama gars yi waaw waaw borom commune Sangalkam borom département de Rufisque waaw waaw mu ngi noonu ndeysaan ndeysaan waaw waaw sama gars yi kontaan naa bu baax a baax a baax a baax waaw waaw Massène Diouf maa ngi lay bëggee Alioune Touré maa ngi lay bëggee merci à vous Yacine Seck yal na leen yàlla defal laf jat jaajëf waaye bëggee naa leen kontaan naa bu baax a baax ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw ñu def porte à porte rek sama gars yi waaw waaw waaw waaw affaire yi tey moom amul dara simple dëgg la waaw fii Sangalkam la fii suñu zone la ñun ñoo ko moom dëgg la te li ñu ñaan mooy fii jomaay mooy Pape Sow Pape Sow mooy jomaay dëgg la tey nag li ñu bëgg mooy ndam rek dëgg la waaw ñu def porte à porte rek ñaan yàlla tey dëkk bi yëpp ñu jàppale ànd ak Pape Sow dëgg la nga xam ne mooy Alpha Bokar Xuma dëgg la nga xamante ne bii mooy jàppale Alpha Bo jomaay euh, dëgg la dafay ñu jël ndam li dëgg la premier tour premier tour amul leneen amul leneen ay ca loolooy dëgg sama gars yi daa loo wax may wax lu toujours la même chose rek tey leen bi dëgg la meilleur maire du monde notre fierté nationale moo jara àndal dëgg mooy mooy jomaay jomaay mooy Pape Sow dëgg la kon nag fii moom dëgg la ku ñëw moom la ku ñëwul moom la ñëw leen ñu ànd moom ca kaw ca kanam rek ay waa ca kaw maa ngi leen di waaw comme ça ñu ñu ñu ñu yeggali liggéey bi incha allahu rabi léegi ñu génn tuuti xool li xaw ci biti incha allahu rabi Ibou Deme lekk lekk rek nga mën yow Ibou Deme léegi ñu xaar ñu xaar ñu xaar ñu xaar ñu xaar tuuti ñu xaar tuuti ñu xaar tuuti ñu xaar tuuti waaw ah xam nañ ko ñëw nañ ko ñëw nañ ko ak maire ah, ah, la ne ah ok. kan la. waaw présidente waaw waaw waaw waaw sànni si ay kaddu sànni si ay kaddu waay. ah sànni si ay kaddu waay waaw présidente waaw non waaw waaw waaw waaw waaw. dëgg la. dëgg la moom ah, rek la ñuy topp. topp ñu leneen. Ah, topp ñu leneen loolay dëgg. <laughs> dëgg la. dëgg la dëgg la dëgg la incha allah rafet na dëgg la dëgg la ñëw naa extension ànd naa am incha allah incha allah loolu jeex na jeex na tàkk amul benn ragal yaa jëf waay ñooñu ñooy waa kal ñooñu mooy waa Calabas bu extension ñoo nekk noonu sama gars yi Calabas bu extension Sangalkam fii nii ñoo nekk noonu sama rak jeex jàkk si Papa ñoom ñoo nekk noonu gis nga leen ñoom waxuñu lenn lu dul Papa lan gëmuñu lenn lu dul Papa Sow ndax xam nañ ne Papa Sow mooy Jomaay Jomaay mooy Papa Sow xam nañ ne Papa mooy Sonko Sonko mooy Papa Sow sama gars yi loolu naa yees na wala boog président Sall. sant ay jë. Sonko rek. ah Sonko mooy mooy Diomaye mooy Pape Sow. ah Pape lañ gëm de. ah looloo tax instant looloo tax ngeen liggéey yëpp. kese tëj sànce yeeg lépp waaw yëpp. bi laay si rek. wàcc si terrain bi. ndax Pape ndax Pape ah? ay. Ah. waaw <laughs> mi ngi noonu ñu xaar le maire de la commune de Sangalkam comme ça mu génn bu génnee bu ko defee ñu continuer liggéey bi mu naajes waaw ndax mu ngi naajes boobu ba léegi daal dafa war a gën a ay ca. dëgg laa wax. Pape Sow borom dëgg bi. ah waaw waaw loolu dëgg la. ak leer moom la ñëpp di topp. dëgg la de dëgg la de bépp moom lañ topp. dëgg la de dëgg la de dëgg la de. waaw ah demal si Aba sama doomu ndey. barke Rasulaay demal si Aba sama doomu ndey. ah ah Aba ah, borom bàcc yi. waaw borom bàcc yi loo waxee wu. borom bàcc yi. jomaay rek. yëpp bàcc dëgg la. waaw alfa rek. rek moom la ñuy topp topp ñu keneen. barke Rasulaay. yow sa leneen teel. teel teel Pape Sow rek. rek rek rek. <laughs> léegi sama gars yi ñu xaar ñu xaar tuuti bu ko defee le maire de la commune mu daal di génn bu génnee ñu xaar tuuti le maire ñu xaar tuuti le maire de la commune de Sangalkam daal di génn bu génnee rek bu ko defee comme ça liggéey bi mën a continuer bu baax a baax a baax incha allahu rabi waaw ñu xaar tuuti rek bu ko defee liggéey bi ñu continuer ko fii si Sangalkam ndax boobu ba léegi gis nañ ne liggéey baa ngi nice gis nañ ne mu ngi rafet gis nañ ne mu ngi tolloo sama gars yi ak le maire de la commune de Sangalkam ndax Pape Sow mooy Diomaye ñëpp xam nañ loolu Diomaye mooy Pape Sow ñëpp xam nañ loolu Pape Sow mooy Sonko ñëpp xam nañ loolu Sonko mooy Pape Sow ñëpp xam nañ loolu sama gars yi bi ngeen ko suivre boobu ba léegi bi campagne bi ubbee ba léegi gis ngeen coalition Diomaye doole bi nga xamante ne ni moom la am si biir si euh, biir Sénégal du wax si si département de Rufisque du ma wax si ay département wala région mais doole bi nga xamante ne nii coalition Jomaay moom la am Jomaay président ku xool rek xam ne wallahi carte gi moom leer na féete na boor bu baax a baax a baax a baax ku xool xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg doole yamul ndax coalition Diomaye ñi nga xam ne ñoo siy topp ñëpp di si génn du kenn koo xamante ne nii fay nañ la cent franc wala fay nañ la cent cinquante wala deux cent franc amul fii soixante quinze duñ la ko joxe wala fukki dërëm sax ni ko son Sonko waxee fukki dërëm sax duñ ko joxe mais gars yi ñoo am bëgg-bëgg si Sonko am bëgg-bëgg si Diomaye daal di gis seen bopp si Jomaay di gis bopp si Sonko di gis seen bopp si Pape Sow mi ngi noonu nag moo tax Pape Sow mu ngi koy assuré fii si commune Sangalkam mu ngi koy assuré fii si département bu Rufisque bi sama gars yi direct quatrième jour de la campagne la coalition Diomaye président à Sangalkam waaw waaw waaw waaw waaw sama gars yi mu ngi mu ngi naaj ñu xaar tuuti rek comme ça ñu ñu ñu ñu ñu yeggali liggéey bi bu ko defee mu gën a rafet bu baax a baax ndax liggéey baa ngi rafet ba léegi sama gars yi. Euh, welcome incha allahu rabbi sama gars yi saa su day gën a di nice incha allahu rabbi te rafet rafet bi yëpp kanam la jëm incha allahu rabbi waaw léegi léegi rek ñu xaar ginnaaw bi ñu jullee ba noppi xaar maire mu takkaat daal yi ñu àndaat waaw continuer waa dox waaw dugg fépp waaw daal di rakiste fépp sama gars yi daal di daal di tooyal fépp daal di inondé fépp sama gars yi waaw dina nice incha allahu rabbi ay Sow Mansour maa lay bëggee bu baax a baax nee na nee na waaw tey foo leen jëm ay sant bi nii ñu ngi sangal kam daal fi lañ nekk di ko assuré Abou Sow maa lay bëggee bu baax ah waaw Moussa Kalamu maa lay bëggee bu baax a baax ah jëf waaye gars yi kontaan naa de ndeysaan détenu yi sopp nañ la la wax si Diomaye Diomaye mooy Sonko dëgg la dëgg la de dëgg la de dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg macha allah loolu am na solo dëgg la ah Sonko Diomaye ndeysaan <laughs> <laughs> waaw léegi ñu xaar tuuti bu ko defee le maire de la commune de Sangalkam bu génnee rek ñu continuer liggéey bi bu baax a baax ndax liggéey bi day gën di nice saa su nekk incha allahu rabbi léegi xaaral ma yendu xool ba xam gars yi fan lañ toll xam naani ne léegi rek maire génn ndax julli na ma ba noppi waaw julli na ba noppi xam naa est-ce que ñaan yi ñoo gudd rek ñaan yi muy ñaan rek xam nga ñaan yi moom ñaanu yéene la quoi moo tax buy ñaan moom day bëgg a ñaan yi xam nga rek wa suñu borom nangu ko waaw te xam naa ne suñu borom da ngay nangu ndax borom xol bu set la Alpha Bokar Xuma borom xol bu laabir la Alpha Bokar Xuma ku yàgg di dimbali askan bi la Alpha Bokar Xuma ku yàgg di dimbali néew di doole yi ku yàgg di dimbali moom man daal xàmmewul ki ki ko bëgg ak ki ko bañ xàmmewul ki ànd ak moom ak ki àndul ak moom moom buy jàpp day jàpp rek te yàlla tax te buy def day def te yàlla rek tax moom mën naa def ba pare sax day fàtte wallaahi laas bi Alpha Bokar Xuma du toog naan kii maa ko defaloon nii wala maa ko defaloon laa moo tax moom day def te xàmmewul li muy def kan la koy defal moom mooy def te yàlla tax si loolu lañ ko yaree si loolu la màggee si loolu rek lay yëngatu wallahi lazim ndax li muy yëngu social di si dimbali doomu aadama yi du bi mu falee bi mu faloo nekk maire la ko commencé def non noonoo non non boobu ba mu ko commencé def boobu yàgg na boobu nekkagul woon dara dara dara dara dara ayca ayca Bas Bas waaw waaw waaw Bas mu ngi sa liggéey rafet na Bas waaw sama gars yi mu ngi noonu l'espoir de la commune de Sangalkam le premier magistrat de la commune de Sangalkam mu ngi noonu sama gars yi ñu fas yéene continuer liggéey bi mu rafet a rafet waaw waaw liggéey bi la ñuy continuer di ko rafetal ba mu gën a rafet fii si Sangalkam fas yéene ko tasaare fii si commune Sangalkam waaye tamit fas yéene ko tasaare si département de Rufisque bi yëpp incha allahu rabbi sama gars yi dara du leen ci umbu dara dara dara du leen ci umbu sama gars yi incha allahu rabbi mu ngi noonu Corona 2024 kenn ñëw monsieur le porte-à-porte bi seen nit ñi. le maire de commune de Sangalkam Pape Sall yi noonu Issa Mbaye Pellien. dana borom jaasi ji Mira, tengo ɗi kam so imama alko bogor xumo ɗenala sangal kam sokole to warla dugol fulane fulane taram ila deme sere maire si woon ko ci yeneen ko ndax bi xeex surtout yow wax dëgg ne yàlla moom bu dem ba mu yomb a liggéey ànd ak ñoom lay àndal bu dee su biir la di su biir jël fa parole yeneen xale yi ñuy défendre am nañ sa plein droit di ko défendre moom doomam bokk na si ñu xam jàpp si mais moom yàlla dafa am conseil yi ci am si mais nit ki lu baax li ko defal day mën a wax si moom loolu moo tax ñu ñeme ko bokk incha allah loolu parce que yoonam bee bu ñu lefaal yi fii koñ yëpp a tëj seen man maa ko def si te nit ki tam li la métti da nga koy wax ndax ñu ñett doon na bokk mais da sama doom waaw ñu ngi yéen a ngi Sangalkam ban kóolóor la ñu nekk Sangalkam yoonu kër Omar Gueye yoonu kër Omar Gueye yoonu kër Omar Gueye waaw waaw gaawal rek gaawal. Thank you. waaw sama gars yi ñu xaar tuuti rek incha allah rabbi ñu xaar ñu xaar ñu xaar ñu xaar ñu continuer di leen jox ñu continuer di leen ko partager live bi nice nice nice yéen ñi ñuy suivre partout dans le monde gars yi ñu ngi am si Facebook bi di ñu am si YouTube bi aussi tamit ba léegi mu ngi rafet sama gars yi ñu ngi kontaan si yéen bu baax a baax ñu ngi gis commentaire yëpp waaw lépp ngi lépp ngi tolloo sama gars yi lépp ngi tolloo ndeysaan sonko rek ndeysaan Sonko rek Sonko rek Ndeysaan waaw gisee ñëpp ngi ci gàttal dëgg la yéen a ngi ci waa nii la Babaye Diomaye Diomaye Pape tey ñu ngi ko yàlla waa li muy dugal muy dugal Goro ana bagada ndeysaan Goro ali soppane ndeysaan sama gars yi ñu ngi Sangalkam ba léegi mu ngi nice ak la coalition Diomaye président lépp ngi tolloo fii si commune Sangalkam waaw waaw sama gars yi te mu ngi tolloo si département de Rufisque te ni muy tolloowee si département de Rufisque noonu lay tolloowee si Sénégal waaye tamit noonu lay tolloowee si monde entier ndax waa diaspora bi tamit gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax si coalition Diomaye président niñ si dugalee seen loxo wax ma loxo sax mais seen yaram lañ si dugal waa diaspora bi seen yaram la ñu dugal si coalition Diomaye président ndeysaan génn waa Sangalkam ni ñu génnee ñoo génn nañ ñoo génn ak doole waa Sangalkam Derrière le maire Pardon, Tahoutina, et PAM mooy Diomaye Diomaye PAM. yéen a ngi rafetlu coordinateur. muy nii kii coordinateur bi. arrondissement bu Diangal Kan. waaw. gaay ba léegi ñu ngi biir ba léegi

Fatick Fatick laa xaw a sori loolu xam naa ne wax dëgg yow. tey tey tey tey dama laa indil sa doom. waaw waaw tey indi naa la sa doom ndax wax dëgg yàlla yàgg na koy wax chaque jour damay wax ak Pape tey la ko yàlla dogal tey ñu ngi si campagne vraiment fan yii yëpp waaw waaw gis nga fan yii yëpp gis nga noonu nga gisee noonu lay def waaw. waaw damay nuyoo rek. waaw waaw damay nuyoo dem. waaw waaw waaw waaw plateau de coalition Diomaye àndal ñun ñëpp nekk ci coalition bi ñoom Birame ñoom Samba Cissé ñoom Thierno donc ñoom ak ñoom ñëpp ànd ko ñëpp vraiment ci coalition bi ñëw rek pour ñu la mooy xam ne kii suñu ko jur la moom loolu ak suñu bàpp na waaw fii la fii la nekkoon fii ci dëkk daal fi ñëw kon dañ ñëw rek pour ñu ñaanal ko ndax mu ngi bàyyi xel ñu ak ñu bokk ñu séq mooy sëñ Mouhamed léppam moo yor waaye ñun lépp kon lépp benn la donc yàlla yàlla ñu jàmm donc ñu baax a baax Ousseynou mu ne Ousseynou gën a yóbbu Ousseynou waaw yow léegi nii Massane Sow bu fi nekkoon lu mu koy ñaanalee man am naa droit jël place su papaam parce que man papaam la woon bi ñu nekkee xale ak yaayam boobu moom mi est-ce que juddu na sax boobu judduwul fi ñu ñëwee kër Ndiaye loo ñuy ànd nekk nekk ba yàlla def coloré suñu diggante ñaari famille ba ñu ànd nekk benn ndax ñun bañ fa ñëwee en 1976 boobu sa boobu kër Ndiaye loo àll rek la benn kër lañ fa xamoon mooy seen kër ak kër ak séyeen foofu rek lañ doon fréquenté bu ñu jógee ñun suñu kër ci àll bi seen kër la ñuy dugg ñu accueillir ñu mu nekk benn famille nag bu dégg ba ñoom ñii ñu judd yaayam mi ngi kër Ndiaye Lo maa ngi fi wante fu ñu gisante dafay mel ni tey la ndax ñoo daan bokk lal ba ñii ñëpp ñu ànd ñu bokk lépp daal man pap bu dul politique sax lépp lu mu nekk sama doom la ba pare sama doom la ba pare mënu ma ko échanger dara parce que ba ma koy am booba amaguma ñoom amet yi ñoom xam ne ne comme yàgg na du dëgg man nag kóllëre laay jàppee nit ndax démb la woon te rus naa kii ñëw sàngalkam ma koy wan ginnaaw bis rus naa loolu ndax kóllëre gi may boole gi ay ay waajur loolu moo tax ma gën ko téye ak dégg tamit baax baaxam ndax nit li ñuy wax ne golo gudd na geen wante ci mu yëg ko dëgg la ndax man ba may dégg ay affaire am muy toppatoo nit ñi di leen dimbale ci social ci ci kër njaaloo wóor na yàlla ne laaj ko ndax man seen kër sax yaayam toujours daf may wax Ndeye Asine tax doo ñëw ñëw seet sa doom ma nekk affaire politique la léegi boo ñëwee rek ñu ne na politique moo tax du ñu xam sax lu leen boole te man loolu moo ji moo ma jiitu loolu moo tax fréquentation bu bare duñ ko ba bëgg démb bay ma gisanteeg yaayam dañuy toog di waxante téléphone bu ma ñëwulee papaam bi mu mujj bi ma koy mujj gis ndeysaan boobu mi ngi toog di feebar noonu rek ñu toog di waxtaan ci lu yàgg nga xam ne ne affaire bi kii na ma daal dama koy ñaanal rek ñu may yéene samay doom yi nga xam ne ni mooy amet bu may jur muy sama taawu góor loolu laa leen di yéene ñoom ñëpp xamante nag ñoom ñëpp waaw dañuy di dégg ñoom amoon na si 60 waaw ci DG mu ne ma DG ñu wax ma yeneen ko xamoon ne na yaayam après yaay sama ñu dem gis directeur mu yokkal nga amoon si zone mu doole si waaw yàlla dafa la ñu ko yëgulee ngeen def bu baax bu ñu honneur rek ndax yéen loolu lañ leen juree dañ leen juri ci lu baax kon bu ngeen màggee ngeen juddoo gis seeni waajur ñuy def lu baax di dimbale ay doomu aadama def leen lu baax rek ndax lu baax loolu foo ko def du réer ndax fu ñu nekk daf ñu fay fekk te loolu mooy suñu honneur que ñun ñu ñu leen jur ñu leen di dégg ci leneen lu dëgg def leen lu baax rek man Sangalkam maa ngi fi depuis 1989 89 laa fi nekk ba tey képp ko xam ne ne Yacine Diop doo ko gis mu dox ci lu ñàkk fayda doo ko gis mu wax ci lu ñàkk fayda man loolu moom assuré naa ko sama bopp di ci suba nag xaw ma ko démb suba xaw ma ko mais ba tey jii fi ma toog ni ngeen ma fekke képp kuy góor képp kuy jigéen dana ma respecté pas parce que maa njëkk a sama bopp parce que gisuñu ma may dox ci lu ñàkk fay da gisuñu may œuvre ci lu ñàkk fay ñi ñëpp samay doom lañ su ma nekkulee sax ku si nekk xam na sama jikko boo xam ne ni boo toogee boo ko waxee ci na dana waaw kon nag man noonu ma leen ñu leen yare noonu ñu leen juree continuer leen ci loolu te incha yàlla dina la leen defal lu baax parce que lu baax rek waaw c'est seul le bien qui paye dama sama papa doom c'est seul waaw may wax ci euh, sama tour en tant que coordonnateur Magui Pastef pour euh, kuréel bu Sangalkam waaye aussi nekk membre ci bureau exécutif départemental bu Rufisque bu Magui Pastef section communication euh, di wax na rek ci coalition Diomaye bi ñu nekk ñun le maire Pape Sow dañuy rafetlu taxawaayam parce que dañoo àndoon ci coalition Yewwi Askan Wi mu nekkoon suñu candidat candidat Pastef nekk candidat aussi vision nekk candidat aussi taxaw Sénégal mu am doole boppam nag moom bu mu ñëwee loolu yëpp la ñuy boole ba yàlla may ñu ndam ñu mën a gagné Omar Gueye ñëpp rafetlu ko boobu ba léegi ñi ngi gis taxawaay bi nga xamante moom am ci commune bi ñu rafetlu ko bu baax a baax rëccul ñu daal li nga xamante ne moom lañ ko doon defee candidat nous a donné pleine satisfaction dem nañu nag ba ñu tollu présidentiel mu dëggal bopp bu ñëw fekk suñu ci biir coalition bi fas yéene ànd ak ñun liggéey liggéey boobu nga xamante ne moom la nekk def ñi ngi ñaan muñ am ci ndam comme ñu ko yaakaar ñun ñëpp bu loolu passé nag xam nañ ne maire pour nga gën a mun a am moyen foog nga nekk ci euh, régime bi nga xamante ne parti bi nga xamante ne ñoom ñoo yore état bi su ko defee sa capacité gën a yokk sa mébét yëpp nga mun ko réaliser au grand bénéfice de la population ñun loolu mooy suñu taxawaay loolu moo tax ñu am engagement asse ses côtés voilà donc euh, ku gara ku jara jàppale la te yéene bi ñu ko yéene moom ëpp na sax li nga xamante ne mooy commune Sénégal mooy commune Sangalkam ñu ngi fi wax les 3C muy Sangalkam di Bambilor di Tivaouane Peulh Niaga bëgg nañu moom mu am fi une très bonne visibilité parce que nag dañuy ànd pour uti victoire suñ ko amee aussi alliés ñoom ñooy ànd aussi dem gouverner te ku ci am visibilité bu ñuy dem bay gouverner nañ nga mën a cëral li nga xamante ne di nga mën a am ñu bëri ñoo mën a dugal ci tund bi yëpp waaw ñun loolu mooy suñu taxawaay loolu mooy suñu engagement te di ñaan rek yàlla may ñu si ndox. incha allah na ko def. merci. waaw def Fatou ak Fala Fekk naas rek ñaan yàlla mu fay seetaan te eh, may ñu nag li nga Sangalkam ba léegi si xamante ni moom la ñu def ànd ceeg le maire de la commune de Sangalkam muy Alpha Bokar Ouma ba léegi gis ne tawuñu tayyiwuñu benn yoon. yes. waaw noonu lay demee le maire Pape saa foo teeg ñëpp waxtaan ñu fas yéene Diomaye sunu candidat ni naa la Pape mooy Diomaye Diomaye Pape waa gars yi bu leen fàtte jëli carte yi ni naa la ñu ngi ci mairie bi bu leen ko fàtte waaw waaw yu bëri yàtt nee naa la yu bëri yàtt mu bi nee naa la Pape mooy Diomaye Diomaye ba léegi di leen fàttali ne ñu ngi biir Sangalkam waaw waaw di def porte à porte waaw. waaw sama diggéey. di def porte à porte biir. mooy ma yaay booy baal ma baal ma rek. waaw.

en tout cas kontaan naa li ma gis ni man baykat laa man baykat laa lii lii daal di war a ma kontaan nii. a sonn quoi. waaw waaw waaw yaa ngi fay kontaan nañu bu baax gis nañu la ki nga yónni tamit c'est un grand représentant c'est kii waaw mais vraiment kontaan nañu si moom trop mhm. parce que première année bi mu ñëw mën ma fóode à partir d'aujourd'hui dugal naa leen si agenda culturel dafa comprendre am culture mandingue moo tax ma ne moom mu ñëw foofa même si ki ne kii ñëwagul ci loxo bi ñëw na mais moom jëm bi représenté na la foofu waaw vraiment comme sama gars la yàgg nañ ba maa ko moom quoi vraiment bon même si au niveau de la mairie sax am na yu bëri yoo xam ne jàppale na ma foofu yow mi benn yoon la ñu récolté mooy boobu mais vraiment kontaan ñu ngi leen gërëm bu baax yàlla na yàlla fay li nga bëgg si commune bi yàlla na yàlla defal loolu lañ moom vraiment ma présente délégation bi Anna si Cissé mu ngi nii nekk coordonnateur Macky Pastef donc nekk suñu euh, lépp suñu xarit suñu lépp ak ñoom Thierno Fipou ñoom Amay ñoom Bass ak madame Diba madame Diba Pastef ñoom ñëpp ñoom ñoo ak Père Bravo may ne sama conseil technique ñëw dugg si dëkk bi tey waxtaan ak nit ñi comme weeru koor lañ ne ñeen nañ ñëw waxtaan dox mbokk waaw xam ngeen ne opposition dafa métti boo yoree commune ànd ak état day métti yomb kon nag bii dafa war gaaw rek leer mu jeex taj cooli jeex projet yaatu na jarul ñu fi xaju fi surtout surtout agriculture ndax soo xoolee Sangalkam tey commune vocation agriculture la bu njëkkoon supame bu baax garab bu baax nawet bu baax légume ci luñ jógee mais loolu disparaît na léegi xool dëgg Sangalkam bi 400 hectares mu ngi nelaw fii 400 hectares kenn def fa dara yaa rien tey soo amee ay partenaire pour liggéey te état jox la autorisation du sotti daj fii projet bi xaalis bi génn na mais ba tey parce que y a un problème de convention entre Green 2000 ak Sénégal daj yëpp ngi doon ba ba mu des tegu sangal kam daj bi nekk nu mu tuuti Lompoul ak bu Kaolack ak bu Kaffrine yëpp mais bu sangal kam ba léegi mënu sotti enjeu enjeu politique la moo ko kon dañuy ñëw rek wax leen ngeen jàpp ci liggéey bi ñu fal jomaay jomaay man soxlaa am de Ousmane Sonko moo soxlaa joxoon ñu jomaay kon defe naa ni bu jomaay ñëwee nag projet tijjeeku ñu liggéey commune bi càmm gi mbay mi emploi des jeunes financement des femmes commune bi gën a taaru ndax te yàlla dafa def li gën a cher Sénégal Sangalkam a nekk région Dakar li gën a cher ndax dañu am suuf ñun région Dakar Sangalkam war ci suuf su ma nee Sangalkam nag mooy les trois commune la commune de Sangalkam la commune de Bambilor et la commune de Tivaouane Peulh-Niaga ndax soo jëlee région Dakar un tiers yi en terme superficie mooy région Dakar maanaam Dakar bu ñetti pàcc benn benn pàcc bi. moo ko communes yi kon loolu dafa am solo moo tax ñëpp si war jàpp ndax xam naa yéen si jàpp sax waaw di sant aussi responsable yu ànd même Thierno Fane ñëpp waaw ñoom Fass waaw vraiment daal waaw kii yaa ngi nii allo Omar allo Omar waaw waaw waaw ñaata la macha allah baal ma xool allo baal ma xool waaw waaw waaw. waaw Aliou. ay photo maag sama mère bi de. Ah, ah, non jëlal sa bopp yow laay yow laay délégué fii nii séddaleel ma ko ci koñ. ah d'accord d'accord merci beaucoup. dëgg la bëgg koñ bi waxal ak gars yi waa Kaasa Kambe dañoo am kii bi Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko naa ko remettre au niveau du cadre nag nag nag nag na ko waa Kaasa Kambe xamee na jërëjëf su ñëwee dinaa ko d'accord sans problème. mais fan moo des. sama yi ba léegi di leen fàttali ne ñu ngi si biir Sangalkam waaw waaw di def porte à porte visite de proximité dox mbokk nemmeeku ak askan bi waxtaan ak ñoom si jomaay président waxtaan ak ñoom jox leen ay spécimen aussi tamit da si am solo bu baax a baax a baax ndax élection yi njëb yu am solo la élection yi moo nar a changer Sénégal sama gars yi. bu ngeen ko xamee ak bu ngeen ko xamul yëpp élection yi ñu jëm nii mooy changer Sénégal mooy soppi Sénégal kon gars yi nga xamante ne nii jotaguñu seen carte d'identité nationale nañ ko dem jëli ji seen i carte d'identité gars yi moo mën a indi changement carte d'identité yi mooy arme bi carte d'identité yi mooy balu fetal bi mooy dóor mu wàcc boo leen ko amee rek boo leen dóor waa parti au pouvoir daal di wàcc kon nag bu leen ko négligé gars yi dem leen jëli seeni i carte daal di koy fanaanal daas fanaanal la ñu wax sama gars yi ku daasul doo am loo fanaanal te bu jour élection euh, vote jotee doo mën a sama gars yi carte mooy fal mooy folli ay wax falul folliwul carte mooy fal mooy folli gars yi jëli leen seen carte bu ko defee ngeen jo ngeen daal di votel waaw bu baax bi mooy Diomaye Président ndeysaan ndeysaan yoonu ñaar fukki at ak lu ko topp waaw yu xamoon naa ne daañu daje ndeysaan oh ndeysaan waaw sama gaay ñu ngi biir Sangalkam waaw waaw ñu ngi biir Sangalkam porte à porte yi nga xamante ne moom la ñuy ak le maire de la commune de Sangalkam ak jeunesse commune de Sangalkam commune de Sangalkam maanaam kenn kenn desul ñëpp a jóg ñëpp ñëpp waaw nekk nekk derrière le monsieur le maire de la commune de Sangalkam nekk derrière le maire de la commune de Sangalkam nekk le président du parti mouvement MDD Alpha Bokar Xuma ndax Alpha Bokar Xuma dañuy gis suñu bopp ci moom waaw waaw ndax moom dafa jël boppam jox ko jamaay jël boppam jox ko Sonko moo tax ñun ñu gis ci moom suñu bopp bu baax a baax ci moom loolu am na solo. ànd ak sama waaw. mën naa ko de collection fii ba ngoon gaañ waaw rek parce que ganaar sax mën naa kaa dóor baay dama woor nag sama gaañ damay nuyu rek man rek maa ngi ñëw dama koy nuyu rek waaw. Barrow. yi di leen fàttali ne instant yi nii ñu ngi biir Sangalkam instant bi nii nekk ba léegi nii ñu ngi si porte à yi ak le maire de la commune de coalition Diomaye président ñëpp ñu ngi ci biir waaw ndax commune Sangalkam yéen a ma gën a xam ne muy demee nooyoon na wante bi si maire dugalee loxoom la gën a nooy bi si Pape Sow dugalee loxoom xel yëpp dafa dal Pape Sow ñu si dugalee loxoom ñoo fekk si coalition Diomaye ñëpp a kontaan ba bi ñoo ko fal du def dara te du si consulter ak askan bi moo tax laata muy jël décision dafa waxtaan ak askan bi ñu joxoñ ko jamaay président mu jël léppam jox ko jamaay président loolu dafa am solo parce que ay nit buñ la wóoloo ba fal la ba jiital la booy def lu ne foog nga si diisoo ak ñoom foog nga si sottinte ak xalaat ak ñoom foog nga leen di consulter ñu lay wax sa xalaat xalaat yooyu nga jël ko di ko doxal tant yaa ngi déglu askan a a a ñëw ànd ak coalition Diomaye Sonko waaw waaw mooy bu baax bi sama gars yi léegi léegi ñu ngi si kër Serigne bi Serigne Mouhamed Mbacke fii si Sangalkam di di borom xam-xam di kilifa di ko yàlla baaxal macha allah Serigne Mouhamed Mbacke waaw moom la ñu fas yéene ziar si nuyu si ko loolu da ci am solo bu baax a baax ndax xam nañ digganteem ak Papa Sow digganteem ak maire commune Sangalkam waaw yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na ay relation yu rafet rafet rafet la ba léegi Papa Sow di sàmm loolu di ko te du te du gisanteeg bi te politique tax na sax ñu mere ndax man politique tax na ñu mere ndax man waaw dafa am loo xamante ne euh, démb la woon kër gi sama kër la. may ñëw woote ma wax ma ko damaa ñëw rek ma ma ndax loolu moo ko may si man. moo koy sant gërëm bu baax. bi ma amee jafe-jafe fa ma nekkoon la ma fekk. ñaanal man dem gàmmu mu jël oto am fekk ma Tiwaawan sama kër. Mm-hmm. ñaar yooyu rek. benn rek benn rek ak kon loolu dafay baax ma seede ko ñu ma àndal xam ne sàngal kam gi wéetu ma fi am naa fi ay kilifa am naa fi yaay am naa fi pap am naa fi mag am naa fi rakk ñu ma ko amee si dëkk yëpp yàlla yàlla dafa ñu jàmm am na ñu jàpp man soxlaatuma dara. man ko ma doon si politique. ñi ma àndal nii. te si ne man kese kese. donc politique boobu. waaw ah, loolu dëgg la waaw vraiment. dëgg la tool foo xamante ne. ñu ñu lay yawal gisal la. dëgg la amoo choix. dëgg la sañ te bañ sañ nangu. wallaay dëgg la li may def lii yëpp. ñoom ñu ñoo ko waral. dëgg la te ñoom ñu ne ñoom am nañu tax. dëgg la du ñoom seen bopp rek mais dafa am ñoo nekk seen ginnaaw. dëgg la ndax fi ñu ay responsable lañu. dëgg la waaw mais bu ñu bàyyi seen i kër. bàyyi seen i jëkkër bàyyi seen lépp ñoo tax ko ba dafa am lu tax. dañu bokk gëm-gëm boo gis-gis. waaw tam ñaanal leen bu baax. incha allah daay defoon jàmm ñu commencé bisimilah rahmaan taw alhamdulilah. incha allah defoon jàmm ci réew mi def ko ci sangal kam def ko Sénégal. incha allah moom incha allah loolu nekkoon kàddu yi. kàddu yi ñaan la woon rek kàddu yi amul leneen. jërëjëf lu sottee dëgg la ndeysaan ñaanal mboolem ñaanal ñëpp. waaw waaw waaw waaw wax dëgg yàlla ñu ngi am mbégte bu baax. waaw ndax li nga ko waxee noonu la demee maanaam dëgg yàlla yàlla dañoo boole mm-hmm. eh, yàlla lu mu ko xam ne bii rek bii ci guddi rek mhm. ndax ay xale ñoo ma leen koy ma leen koy seetalaat mhm. te booba booba néewoo ji mhm. euh, suñu diggante yàlla wëllëre gi ñu yàlla boole euh, te itam wax dëgg yàlla yàlla rek tax waaw te effectivement noonu la demee maanaam fii moom sa barata wax yàlla euh, dëgg yàlla itam ñi nga def itam lu sedd sama xol la ndax wax dëgg yàlla nit li nga dafa am ñett li nga moom ak ci liñ boole ak it li nga xam ne doonoo ci dara waaw waaye fii dëgg yàlla maanaam da nga cee bokk waaw boo bokk bu wér waaye waxuma la bokk waaye danga dama damay wax ne la fii maanaam foo moom la sa barabu boppam dëgg yàlla Eh, te itam wax dëgg yàlla ngay ku neex a neex neex a àndal àndal ndax Ibra Mati koo xam ne wax dëgg yàlla eh, ku ñàkk jafe-jafe ku ñàkk jafe-jafe la benn ba ñu topp yàlla dimbali na ko it fan yii passé dafa am ku ku amoon man jafe-jafe waaw mais moom bi ma woowee waaw damaa bàyyi lépp ba ñu may liggéey damay mais yow lu tax lii mooy yéen a xamul lu xew dama am nit problème te ki ma la jafe moom ma tooñ de ba ma tooñ de dëgg la yàlla xam na loolu dëgg la maa ngi si dëgg la waaye moom bi mu waxee dëgg la bàyyi naa dëgg la waaw wallaay dëgg la wallaay bu waxee ne waaw waaw seen sama diggante ak moom waaw waaw wallaay ñu la waaw yàlla waaw loolu loolu loolu loolu xam nga euh, kilifa moom li soxla mooy ko jox cër waaw loolu rek la soxla ndax koo xam ne nit ñi dañu jaaxle jaar ci yow jàpp ne maanaam yow lii dañ ci man dara mhm. maanaam sa sa sa sa wax bu jëriñul mhm. yow daanaka euh, doo am solo loolu mhm. waaye nag bu fekkee la ngay wax ka ngay dimbali euh, maanaam wax ja day day day day am effet loolu rek la la kilifa soxla mooy koo sagal te wax dëgg yàlla ku mën a sagal kilifa la maanaam loolu lu ma lu ma lu ma xam la du benn yoon boobu rek moo tax waaw du benn yoon boobu rek moo tax wax dëgg yàlla léegi-léegi nit maanaam yow yaa ne ci bopp yaa ne ci bopp bi yaay kilifa gi la neexee maanaam suñ la woowee nga ne ah waaw loolu de euh, la ci yoon wax rek man dinaa ko def jàpp sa bopp waaye nag maanaam ci li may wax ci ñàkk problème bi ak ak baax bi moom sax dafa lay bëgg a wan ne la moom moo newut ci dëgg ba nga xam ne yow kii li muy réclamé moom newut ci dëgg waaw waaye tamit maanaam du teree ñun ay nit lañ ko rek bu néew ci dëgg dinañ koo ko wax ne ko ah bàyyil xel nangam ak nangam ak nangam lii yoon du dëgg nag del moytu nangam ak nangam ak nangam ak nangam yàlla ku ku ku kilifa yi fi nekk yëpp it nag ay nitam lañ dëgg yàlla maanaam axalu Mbàkke ak sang si yëpp te loolu loolu loolu loolu dafa yàgg moom ba ñu yàlla di boole yàlla xam na ne boobu politique yi amul moo tax bi bi mbirum politique amee ba mu ba mu warmaa warmaa fekk booba boobu melutoon nii waaw lu bari loolu lu ne ñu ngi ko doon wax ba am ñoo xam ne ni mu ko waxee noonu la dem am ñoo xam ne ba tey jii may wax ak yow nii ci lañ gis seen bopp waaw jàpp ne maanaam dama farak ab ba léegi ñoom dama leen a dama leen a man yàlla def na wax dëgg yàlla nit boo boo boo nekkee nitu ñëpp maanaam waroo boddi kenn waroo xatal kenn te moom te moom ba muy avant muy ñëw sax dafa maa wax ne ma sëñ bi bu fekkee sax dafa am ñu la nar a mere man comprendre dana la comprendre yow sama nit nga bàyyil rek ma ne ko déedéet yow ngaa war a ñëw mhm. foo war a ñëw mhm. da ngay ñëw ah waaw <laughs> da ngay ñëw ah wax dëgg yàlla alhamdulilah moo tax it booba ñëw mu ñëw ñëwaat ñëwaat ah ba bi ñuy tëj campagne yi sax dafa mujj maanaam dugg ci dëkk bi war a génnaat ne ma comme damay tëj naa naa fi lay lay fi mujj mhm. kon nag maanaam boole gi ñu yàlla boole ñu diggante ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala lii ngeen tàmbale ko ci bisimilah te mu nekk lu lu lu lu woyof doy ñaan suñu borom itam réew mi sama borom dolli fee def jàmm sama borom def ci sutura bu baax yokk koom-koom bi yaakaar ji nga xam ne askan wi am nañ yéen yaakaar yaakaar jooju yàlla bu fa yàlla tas waaw yàlla ko yàlla dëgëral Euh, mu nekk loo xam ne itam euh, dana nekk dana nekk ndig ndiglaayu Sénégal incha allah taala dëgg yàlla ñu ngi lay ñu ngi lay yàlla ci ci turu ci turu ci turu ci turu yàlla di di nuyu bu baax nag ñi nga àndal ñëpp mooy Mbàkke ñoo soxna soxna Masaan waaw waaw waaw Samba Cissé waaw ak ak soxna Mariam Diba waaw waaw Malick Fall ak Malick waaw Malick moom sama <laughs> waaw waaw waaw moom moom. ak Basiir ah, waaw waaw ak Thierno waaw Thierno mi ku baax la. waaw Thierno wax dëgg yàlla ah, Thierno waaw waaw wax dëgg yàlla ñëpp wax dëgg yàlla tabaarkalla noonu rek la waaw moom moom mii rek la euh, Pape jërëjëf waaw kontaan naa baax jërëjëf Pape bismillah awsu kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq awsu kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq ربنا كل ما من بقاء والسالكين من خيرات الله اللهم لكم الجزء من كل مساء وتنصرون من مساء تنقص من تشاء وتسل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الليل في النهار وتولي النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الموت من الحي وترزق من تشاء الله نور السماوات والارض وسوء المصدر مصباح المصباح في سجادة سجادة كأنها وخرج من السجادة ولا ولا منفسخ فإن الله لا يوحي jàmm yàlla may barke macha allah yow li naa laa gis na nga def sànq ba léegi gaa yi dafa ci génn maa ngi lay siyaar bu baax a baax yaa ngi am jàmm baax sant wér Moussa

su jógee foofu mu dem ci yi dégg waaw sama gars yi di leen fàttali ba léegi nii ñu ngi biir Sangalkam. waaw di def porte à porte ak le maire de la commune de Sangalkam Alpha Bokar Xuma ñëpp xam nañ engagement am ak détermination am xam nañ ko bu baax a baax Alpha Bokar Xuma nekk boo xamante ne nii commune Sangalkam dañu am yaakaar ci moom département de Rufisque aussi tamit dañu am yaakaar ci moom gars yi bëgg nañ ko gëm nañ ko wóolu nañ ko aussi tamit moo tax mi ngi noonu daal léegi dañuy xaar rek mu génn comme ça ñu continuer liggéey bi bu ko defee muy gën di naaj saa su nekk quoi di gën di de dégg nga loo bëgg ma wax loo bëgg ma wax wax na Gorgé wax na message am quoi. loo bëgg ma wax. waaw nga wax si maire rek monsieur le maire. rek kontaan si ñu jëmale foofu ñu joxoñ foofu la. ñu joxoñ fu baaxul. et ah, fii choix bu baax bi ah, la de. waaw ah, choix bu baax bi mu ngi nii quoi. mooy bi yeewi askan bi. ànd jàppale Jomaay. ndax Jomaay jàppale mooy jàppale Sonko jàppale Pape Sow. jàppale commune bu Sangalkam. commune bi waruñu am lu ñu ko dëgg la ndax bu nu weesoo commune dañuy jël Sénégal Sénégal dañoo war a ñor si ay ndawi réew mi lañ nga war nañoo xool ne carrément ëllëg réew muy baax ndaw ña ñoo koy defar kon nañu xool fii fii mooy fu baax bi keneen ku jaarul fii rek yow na nañ la jaaroo fu baax ay ca enjoy njaay teraanga noonu la demee ah, moom mu ah, joxañ foofu la fu mu hmm. dugg foofu la fu mu dem noonu la hmm, hmm. Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Pape Sow champs yu comprendre actuellement ni dafa jot Sénégal ñun jeunesse bi ñu bët jéem a xool xool choix bu baax bi tey politique bi fi nekkoon démb ba barki démb gars yi dañ ñëw jëlee ko fi ñun ay jeunes lañu am na ñu bëgg suñu bopp dañu xool nga xam ne que ni comme par exemple tey dañuy taxaw ngir liggéeyal askan bi nekkal fi population bi képp ko xam Alpha fulla am jom kon ay jeunes am na lu ñu bëgg suñu bopp kenn bi nga xam dañuy jël dañuy jox ay disons ñuy sol ay 5000 francs ak ay 10 000 francs dépassé nañ loolu quoi essentiel mooy que ni ñun dañuy yeewu jële bi bi fi nekk changé comprendre indi fi beneen level loolu moo fi nekk Ousmane Sonko mooy Diomaye Faye mooy Alpha Bokor xamu alliance Pape Sow jaajëf waa gars yi ñu xaar Alpha Bokar Xuma le maire de la commune de Sangalkam bu ko defee bu génnee rek liggéey bi continué waat comme ni mu doon ni mu doon gisee sànq ba léegi nii liggéey baa ngeen gën a rafet waaw loo bëgg a wax. ban télé la. waa bii mooy euh, cellule communication bu maire bu Sangalkam bi si commune bi la si maire bi. yëpp voilà. ñun kay Sonko rek la ñuy waaw moom rek ngeen waaw. ma ne ko Sonko rek ni ñuy waaw macha allah foofu Sonko Jomaay Jomaay moom la ñuy topp daal. Ah, ah. waaw ñun Sonko rek. Ah. moo nekk suñu xool. kon jeex na tag Pape Sow mooy jeex na tag amul leneen jeex na tag macha allah loolu rafet sama gars ñu xaar tuuti incha rabbi bu defee le maire de la commune de Sangalkam ah yow lay wax yow. waaw kontaan naa trop. waaw kontaan naa c'est presque. waaw parce que paasoopu dana ci kam waaw peut-être am te laakaa boobu mu am tamit laa la pukka laa la suñu palantar a élection la metti na torop parce que dinañ la saaka dinañ la xas dinañ la kii a am solo mooy carte d'identité bi. dëgg la parce que booy ànd ni te amoo carte d'identité. moo solo pana em léegi booy ànd ni dina am carte d'identité ah, mais dama leen di léegi bu ñuy woote. 40 nii la ñuy def 4P la ñuy teg 4P la ñuy teg ñu def ko nii def ko nii ba mu baax. tukkee ko sa amalape. boo ko tukkee la sa amalape la too ko kole. parce que boo ko kole nii lay def. après la tukkee ko si. mbañ gàcce gi mbañ bi. la leen di ay ca la sotti ko si kees bu mag bi yaa wóor yaa wóor. après dëgg la la tey la sine. dëgg la boo sine ba oh, oh. la tey sa loxo def ko sa engrais bi. ndeysaan mais balaa lay woote laat. di lay génn sa carte d'identité. dëgg nga lii mooy carte d'identité bi bu yàgg voté wax nag. la commencé voté lii boo ko mënoo woote ba ànd nañ ne. kii a lii moo tax la ànd nañ ne voilà. non non non jox ma sax ñu loxo yow yow wax nga ni ñuy voté wax nga lan moo tax ñuy fal carte mooy fal mooy folli Cheikh dama jëli sa carte d'identité loolu leer na nag non yow naan nga yow yow yow ñàkkoo ñàkk yow waxuloon du baax de la illa léegi ñu xaar tuuti sama yi le maire de la commune de Sangalkam bu ko defee mu génn bu génnee incha allahu rabbi ñu continé liggéey bi mu gën a rafet saa su nekk quoi ndax yéen ñëpp yéen ngi gis liggéey bi mu ngi gën di nice ñëpp a ngi kontaan si liggéey bi bu baax a baax léegi léegi rek ñu xaar tuuti incha allahu rabbi comme ça mu génn bu génnee rek incha allahu rabbi ñu continuer ànd ci liggéey bi comme ça muy gën di nice saa su nekk quoi lay demee noonu lay demee incha allahu rabbi waaw. léegi ñu xaar tuuti rek le maire de la commune de Sangalkam mu génn incha allahu rabbi mu gisanteeg sëñ bi. waaw ñu mu ñaanal ko yàlla waaw loolu da ciy baax tamit sëñ bi ñaanal ko yàlla incha allahu rabbi waaw waaw yaay booy maa lay jaar maa ngi lay ziar bu wér a wér a wér waaw dëgg la dëgg la dañ fee duggoon dëgg yi ba mu yee weesu dañoo duggoon fii lu tax ñu jaaraat fi ñeme fi hmm. ngorom dëgg la bu doon lam fi waxoon da koo teggi kon tey du fi ñaay la moo tax ngor moo wóor macha allah xam nga lu tax ma bëgg monsieur le maire dëgg la boo xoolee ñi mu àndaloon ca ba muy début ba léegi ñu ngi ci moom ñeneen a ñëw ci moom mais kenn fàqul dem ngoram moo ko may loolu bu dul woon ngor ak jub kon fii tey du fi ñaay ndax ku ne fii am na borom waaye dañuy xuus lu mu lëndëm lëndëm dañuy xuus jaar dëgg la wax nga rek jomaay mooy sonko sonko mooy paap paap mooy jomaay wax ji jeex ñun bii rek ñu dem lool ñu dem fu ñu dem bu ñu ne toogal ñu toog barki yonente bi jeex na tàgg loo wax kontaan ah, waaw mooy jomaay te jomaay mooy paap waaw mooy Pape ñun daal Pape la ñuy topp ñu dem loo ñu dem waaw te ndam rek nag incha waaw moom lu mu laal rek moom baax dëgg la ah waaw Aïssa Diouf waaw la woon fa woon rek dëgg ñaari yoon fii mu jaaru lay jaaraat ndax nag moom mooy xale boo xamante ne loo xam daa set wecc képp bu jógee ak ñu jóg xale yi jóg ngeen seen bopp ndax la tàngal kam fii Pape Sow mooy seen baax dëgg la loolu la yàlla dogal loolay dëgg sama gars yi waaw leer na mi ngi noonu nañ ko ñoo ko déggandoo sama gars yi la waaw waaw waaw jigéen yi nga xamante ne ñoo nekk si ginnaaw Alpha Bokar Xuma di maire Sangalkam jigéen yi nga xamante ne ñoo nekk si ginnaaw Alpha Bokar Xuma di la président du parti euh, du le président du mouvement MDD muy Alpha Bokar Xuma gis nga jigéen ñi ñu ngi feddali seen cofeel ci moom ji góor ñi aussi tamit ñu ngi wane seen cofeel ci moom mat ñi ndaw ñi ñoom ñëpp ku si nekk rek am nga yéene si Papa saw bëgg nga ko wallahi lazim sama gars yi ñu xaar tuuti rek incha allahu rabbi ndax ginnaaw bi sëñ bi waxee ba noppi Alpha Bokar Xuma wax ñoom ñaar tëju nañ waxtaan nañ ñu ngi ñu ngi waxtaan mu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax ndax Serigne Mouhamed Mbacke nekk na ku lu yàlla baaxal koo xamante ne nii jigéen di wuñu benn yoon benn yoon jaar nañ fi mu ñaanal ñu yàlla ñu am ndam élection législative yi jaar nañ fi mu ñaanal ñu yàlla ñu am ndam ñu ñëwaat si élection présidentielle yi waaw waaw dañ naan olof di ne fi nga wokk foofoo xasan delloo ko delloo fa sa loxo ñun dañ faa wokk mu xasan moo tax ñu jël suñu loxo delloo waat ko fa si sëriñ Mouhamed Mbacke mu ñaanaat ñu ne ko Mbacke ñaanal ndax da ngaa ñaanoon si local yàlla nangu nga ñaan si législative yi yàlla nangu kon Mbacke boo ñaanaatal si élection présidentielle yi ndax jomaa euh, yi daal di jël réew mi ndax jomaay bu jëlee réew mi kat Sénégal dafay changé Sénégal dafay naat te Sénégalais dinañ kontaan dinañ dinañ si gis seen bopp bu baax a baax macha allah ñu xaar tuuti rek sama gars yi bu ko defee liggéey bi gën a nice incha allahu rabbi dara du leen ci um fii nii waaw incha allahu rabbi lépp loo xamante ne nii war nañ leen ko génneel war nañ leen ko wan rek dinañ leen ko wan si kattanu suñu borom incha allahu rabbi jomaay mooy sonko sonko mooy Pape Sow Pape Sow mooy jomaay waaw waaw ndax Pape Sow moom la yàlla teg si bopp commune Sangalkam bañ bëgg nangu moom la yàlla jiital yàlla mooy tànn mooy jiital yàlla bu xasee ba tànn moom nañu nangu rek te yàlla rek tax ndax ku nanguwul dangay sonn lii olof di wax naan ku nangu ku nanguwul li yàlla dogal ku nanguwul li yàlla dogal wala mu ne ki ku nangu li yàlla dogal doo sonn te sa xol du jeex ku nangu li yàlla dogal doo sonn te sa xol di jeex waa ku nanguwul li yàlla li yàlla dogal nag ku ko nanguwul nag da ngay sonn te sa day jeex ah mi ngi noonu nag yàlla ëpp doole lépp ndax lu yàlla tracé rek ñun dañu ànd si loolu noonu bu yàlla tracé nga ne da ngay effacé ah gars yi nee nañ gars yi ñoo koy wax de nee nañ bu yàlla tracé nga effacé mu tracé waat nga effacé waay gars yi nee nañ bii di ñëw da lay yow sa jëmm bopp ba noppi nag daal di tracé loolu la gars yi wax de incha allah rabbi léegi ñu xaar tuuti ñu la commune de Sangalkam Asia ah, Wóor le maire de la commune de Sangalkam mu daal di génn bu génnee rek bu ko defee liggéey bi mën a continuer waat incha allahu rabbi ñu def ko comme niñ ko daan defee gars yi bu leen fàttali nag ñu ci weeru koor yi dañoo woor di wax gars yi ñun dañoo woor rek <laughs> la ilaha illallah Mouss Kalaam dafa woor sama gars waaw dafa woor de waaw voilà. ay sadaba gisaguma la si ligne ay sadaba yaa ngi fànn ay sadaba xanaa tey amoo connexion c'est ñu xaar tuuti sama gars yi incha allahu rabi léegi léegi léegi bu ko defee incha allahu rabi le maire de la commune de Sangalkam mu daal di génn ñu continuer liggéey bi mu gën a nice mu gën a nice te liggéey bi day gën a nice incha allahu rabi waaw waaw sama gaa yi askan bi ñu ngi toog di ko xaar waaw bu ko defee bu paree rek ñu continuer waat liggéey bi waaw ñu dox comme ni ñu ko daan doxee muy gën a nice saa su nekk ñu ngi si 15 heures 22 waaw 15 heures 22 amul bàyyi amul bàyyi sama gars yi. ndax gars yi du ñu sonn sénégalais yi ñoo nama changement changement la ñu soxla moo tax du ñu sonn du ñu taay waaw lu mu métti métti métti dañuy téye lu mu métti dañuy téye sama gars yi ñu xaar tuuti Alpha Bokar fu ma génn bu ko defee waaw ñu kii. léegi ñu xaar tuuti sama gars yi incha allahu rabi ñu pare incha allahu rabi bu ko defee léegi nii rek incha allahu rabi ñu ñu ñu ñu génnaat le maire de la commune de Sangalkam moom la ñuy xaar instant yi nii incha allahu rabi ñëpp ñu ngi taxaw nii di ko xaar ginnaaw bi ñu seet see Serigne Mouhamed Mbacke waxtaan ak moom saafonte ak moom diisoo ak moom di ñu si noppee nag sëñ bi waaw toog na maanaam wéetoo na wéet na ak maire waaw ñu waxtaan. waaw mu ñaanal ko yàlla comme ni mu ko doon defee rek parce que nii lañ ko defee woon si élection locale yi nii lañ ko defee si élection législative yi nii lañ ko fas yéene defaat si élection euh, présidentielle yi ndax bañ fi ñëwee woon nii la demee woon toog waxtaan ñun ñëpp ak moom bi ñu paree mu xëcc maire ñu dem si néeg bi mu defal ko li mu koy defal mu dem ñibbi yàlla may ko ci ndam mu ngi noonu nag moo tax duñ ko duñ ko bàyyi benn yoon fi ñu tegoon suñ tànk dañ koy de di ko tegal incha allahu rabbi ñu xaar tuuti rek sama gars yi ñu xaar tuuti rek le maire de la commune de Sangalkam bu ko defee mu génn waa liggéey bi continuer bu baax a baax a baax incha allahu rabbi ñu taaxirul tuuti rek incha allahu rabbi bu ko defee mu génn bu génnee liggéey bi continuer muy gën di naay saa su nekk incha allahu rabbi waaw waaw sama gars yi kontaan naa ci yéen de bu baax a baax a baax a baax ngeen ñuy suivre partout partout partout dans le monde ñu ngi leen di bëggee bu baax diaspora bi ñu ngi kontaanee ñu ngi kontaanee ci yéen bu baax a baax a baax gars yi ñu xaar tuuti le maire de la commune de Sangalkam génn ñu xaar tuuti rek sama yi xam naa léegi rek incha allahu rabbi ñu xaar rek tuuti le maire de la commune de Sangalkam mu daal di génn sama gaay yi ñoo ngi Sangalkam ñu xaar tuuti le maire de la commune de Sangalkam mu génne bu génnee rek waaw liggéey bi incha allahu rabbi ñu continuer ko. mu gën di rafet saa su nekk incha allahu rabi ñu xaar tuuti rek incha allahu rabi le maire de la commune de Sangalkam mu génn ñu xaar tuuti le de la commune de Sangalkam daal di génne incha allahu rabi waaw ñëpp moom la ñuy xaar gars yi moom la ñuy xaar incha allahu rabi nañ xaar tuuti rek waaw bu génnee incha allahu rabi ñu continuer liggéey bi comme ni ñu ko doon defee rek muy gën a naan waaw muy gën a naan saa su nekk xam naa léegi mu génn rek incha allahu rabbi bu ko defee ñu continuer liggéey bi waaw waaw Alpha Bokar Xuma l'espoir de la jeunesse l'espoir de la commune de Sangalkam le premier magistrat de la commune de Sangalkam le plus jeune maire de l'histoire de la commune de Sangalkam l'un des meilleurs maires du Sénégal le king du département Alpha Bokar Xuma mu ngi noonu sama gars yi mu ngi noonu di génn Alpha Bokar Xuma ngi noonu génn na ñu ngi continuer liggéey bi sama gars yi mu ngi noonu génn na Impro TV ñoom dafa leer dafa leer am produit bi yéena wóor There you go. Ouais, pousse-en. Waaw sama gars yi ba léegi nii ah ñu ngi si porte à porte bi fii si Sangalkam ak le maire de la commune de Sangalkam sama gars yi muy gën di naaj saa ñu kii ñu ngi si muy gën di naaj saa su nekk sama gars yi waaw waaw bay Pousseur waaw mu ngi doon sama gars yi oto bi moo sori mais day jege ngi doon sama gars yi ba léegi ñu ngi biir Sangalkam di def porte à porte biir Sangalkam fekk arrière bi daa métti ak de arrière bi day tànge en formation ngeen koy defal yéen yéen ngeen bëgg a rey kii kii <laughs> ñoom di wax. 82 baax na. 82. waaw ñaari ko ñoo des. waaw suñu paree ñu dem nag laaj. waaw waaw waaw. waaw daal. wax naa leen balaa ngay dem xaar Papa Ndiaye. initiative bi nekk fii ci mooy campagne def porte à porte militant ak sympathisant yi fi def ngir am weeru koor nu mu demee c'est pas évident gars yi génn ànd ak monsieur le maire fii ci Sangalkam def porte à porte ba bale Thier da ba bale

Ni gërëm woon nga passons am na yeneen réalisation yoo xam ne mais def na ko def si bañ bi fii sama gars yi ba léegi nii voilà voilà merci beaucoup merci waay merci waay cher jëppale ko mu voilà avec ngeen koy seen mu ànd ak délégation jox man yem bu ñu noppee bu ñu ñu noppee def leen da nga wax rek dañoo war dossier lan donc bu ñu defee ay taxaw sa ñu Thank you. bii reculé. métti nañ barke Rasulullah mooy daw kay. mooy daw day mooy day day ay yow. ay ci gars yi ngeen koy baax trop sax impact bi doo ko la may xam doo ko fuma ak dafa jot rek ma xool gis ma lu ma xam tey impact bi ngeen gis moo la loolu nekk ci ginnaaw say la moom daw naa barke Rasulullah waaw yow ama laay lenn ma mënoon jaaxal de xanaa ñu bañ a yëg si kër Ndiaye loolu. waaw sama gars mu ngi noonu sama gars yi ba léegi nii mu ngi Sangalkam waaw ba léegi nii ñu ngi biir Sangalkam sama gars yi waaw di def euh, porte à porte ak le maire de la commune de Sangalkam sama gars yi mu ngi nice ba léegi ah yéen koy am mu ngi baax ba léegi ah waaw mu ngi baax ba léegi ah fii nii ak la coalition Diomaye président waaw sama gars yi te affaire bi kanam la jëm incha allahu rabbi waaw mu ngi léegi yéen a ma gën a xam. ndànk ndànk rek instant yi dañuy arrière di leen ko jox di arrière di leen ko jox di arrière di leen ko jox mu ngi noonu tànk yi day chargé nag lépp ay chargé instant yi nii waaw waaw <laughs> ndeysaan bëgg mu naaj rek moo tax ñoo tax ñu koy def bëgg mu rafet rek. salaamaaleykum. jàmm rek soo soo soo maa ngi nii dafa nuyoo rek. dëgg loolu. mais loolu loolu moo koy gisee. ñaanal yan yan daal. alhamdulilah. sant na njaboot bi. yàlla yàlla defal jàmm. def ko ci réew mi. bàyyi leen fi. yàlla defal jàmm. autorités yi dañuy sàkku ñu ànd ak ñu la téye ñaanal ñu rek ñaanal commune bi ñaanal dëkk bi ñaanal ñaar ñaanal réew mi am jàmm loolu rek ñu ñëw ñu la téye ndax xam nga koor moom ndax man sax wóoruma dama taw waaw macha allah macha allah yàlla yàlla yàlla yàlla yëkkati la yàlla yàlla yëkkati la kon luñ la bàyyi dafa la ñaan kon waaw la tam ñaanalante mbir mi de moom wékku ci yàlla ak dëgg ku aay wal sa moom dëgg la suñu njaboot ngeen weddi yàlla mooy yàlla def démb nga ne waa mu def te nga ne déet weddi yàlla ci njabootu démb gi ak tey gi yëpp suñu njaboot yàlla yàlla barkeel leen yàlla yàlla sàmm leen yàlla yàlla aar leen la ca des xëjul fii am na fu ma doon yëngu ci biir nawet bi passé waroon naa wax ak yow waaye ñeme la moo tax ma yëngu fa te waxuma ci ak yow bu demee yaa na ko. waaw ba yëngu-yëngu jotaay di leen si waxtaan. waaye bu leen tiit dara. boo boo paree ba si dugub. waaw boo daal si jaar wala ñu mbas ñu boo ñëwee gis ñu tamit ñu jàppale. baax na incha allah pour am dara la si xalaat. baax na bu leen tiit dara yéen a suñu njaboot yaay dañu tudd xale yi li nga xam te ne mooy loolu di ñëw dañuy jënd. waaw taxaw dañoo nangu ànd ak ñi nga xam ne ñu ngi délégation bi Pape Sow moo doon jëmale Pape Sow donc ñuy dox. bu ngeen ko bàyyi bu ngeen bàyyi benn dimanche di ngeen ko am si seen continuation di rebo malgré que le corps du bi waaye ngeen am ko am na te ngi doon a sax ànd ak ñoom

dama ne luy ndaawal ne ko sànni gaz bi yaa ngi gis ci mbooloo mi waaw ay ay yow nag yaa campagne démb démb yow nag yaa campagne da ngaa campagne ba feebar. Thank you.

waaw kon ñu ko war a jël gars yi ñun li ñu def nii suba mel naa ne bu doon ñoom bàyyi nañ yàgg na waaye yow. yëpp yëpp. da nga sori baaxul. wala yow nga jéem a dem si oto bi wala nga jege ka rek. nga dem si ginnaaw. wala wala nga dem si diggante bi rek. Thank you.

ay milliards la ñuy te boobu jamono boutique yi nekk fii ci bopp koñ bi su fay portal sa kàddu bi ngeen yërëm leen Sénégal yi ci rasulullah entraîné ma bañ entraîné ma bañ maa ngi defee maa ngi entraîné yaakaar ne Papa Gueye. te sant ba léegi.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 mais li ma ci gisagum boobu li ma ci déggagum dinaa discuter ci parrainage dinaa discuter ci amnistie ñu ngi leen di jaay waaye kaay la ñu ànd ñëwal. teen bi la ñuy naane amuñu tali amuñu dara. ñun amul ndox ba te amul ndox. mais naa la lii lay tàmbali la maire. amuñu ndox suba nga léegi lii lay def. waa dëkk bi waa Sangalkam seen maire ak lii maire population dañuy jege damaa ne seen ko seen ko mooy Diomaye Papa Diomaye am nañu amoon am nañu yaay yaa ngi woon fii ci biir pavage ndax fii nii ay secteur la te fii nii tamit ay ay faar yoo xam ne chaque jour yaa ngi yëngu ci loo xam ne am na ay sources de revenus yoo xam ne di nga mën a fajal sa bopp say say say soxla donc xam nga tali dafa bokk développement dëkk parce que tali fu mu jaar rek. Euh, tali bu mu jaar rek euh, koom-koom bi dafay sukkaleku parce que tali bu jaaree fi tey boutique dina fi jaar leneen leneen dina fi jaar comprendre nee na nga def lii kër Badou kër Badou kër Badou Badou Badou. alors Badou la ñu yem. secondaire yi ñoo def principal bi moo am secondaire yi amul waaw secondaire yi amul. waaw ma jëloon numéro bi. waaw ñeneen ñoom solution benn am solution. solution.

léegi nag ñu tëjee naa saa yi boo ko gis naa boo ñu wooyee ñu wuyu la. école bi boo ko wooyee woo nga ñu dispensaire bu ñu jege. ñun ba ñëw dañuy dem ba Taliba. machine nu wàllu kaay yi day na Taliba rek. ah yëpp Kaaraan ñun bokkuñu si. waaw. extension ngeen baal man de benn ndax dem ba dix heures ba deux heures ba tey ñun sur le terrain tey ñu xëyaat ñu fii boo ko jël fii dafa lay jël foo maa ngi daal tuub kon métti na mais ñooy wax bon dañu sonn jëlee ko ñu sonn kon bu ñoree parce que opposition la ñu nekk te bu ñu ko doon ñu ko incha allah bu ñu paree parce que le 24 mars dañu doon yees dinañ ko jox daf ko bëgg a gis. am bi am bi gis am bi gën a ko gis ak moom daa mën a waxtaan ak moom kon li mel ni ñaan ngeen jël seen carte d'identité ngeen mobilisé wu am na maire population ñoo ko mën a jàppale yéen yéen sama doole man maay seen doole kon nañu ànd la main dans la main buñ ko waxee ak buñ ko waxul du koy métti man su doon seetlu yomb wala lu sedd. kon war nañ ko waaye ñun am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur kon ñoom wax na ngeen baaxee lu xam ne école dina ñëw ménagement yi dina ñëw dispensaire yi dina ñëw dara yi dina ñëw parce ngeen ko mën a moo ma loolu kese moo ma kon du sa affaire yi mbootaay ñu am na mbootaay bu mag c'est bien organisé kon yéen su bëggee li nga def ñu mel ni yéen laa soxla parce que yéen organisé ngeen bokk ndey bokk bàyyi ànd am na maison de la femme bu ñu tabax léegi bu pare su paree seen produit yéen def yëpp ngeen koy indi sëriñ doo leen lim kon sëriñ ngeen ñëw ñu toog ñu waxtaan jàppale leen. waaw ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm taxawaay bi rafet na sant aussi ñi ma àndal muy la coalition Diomaye parti prenant di nekk Pastef MDD fépp Mary Teuw Niane ak àndal ñëpp kenn desul ñëpp a ngi fi ñu ànd tey coalition Diomaye moo leen seet si yaa nekk coalition bi nag ñoom saas am seen maire bu nekk fii ci commune bi mu nekk ci def si ak soppi si ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Sonko mooy Diomaye doole mooy Sonko Sonko mooy Pape Sow mooy lépp ngi woon si Sangalkam extension le maire de la commune de Sangalkam doon waxtaan ak askan bi nga xamante ne nii ñooy yeewoo fii si Sangalkam extension bi ñaaw bi ñu ko dalalee ba noppi nag doon cas seen doléance wax li nga xamante ne nii moom lañ bëgg a maire taxaw leen si jàppale leen si macha allah wax nañu problème mu ndox bi nga xamante ne am nañ ko fi si saasi rek maire am ku mu woo ne ko carrément li ma bëgg mooy Sangalkam extension bu ko defee ñu daal di mën a am ndox xam nañ ne liggéey bi ñu ngi ko doon def mais accès gul woon fii si extension wante kooku bi comme maire woowee téléphone ñu déggante si saa si si la validé loolu ne ko jox ma seeni numéro comme ça liggéey bi ñu yaatal ko ba si sangal comme extension loolu am na solo le grand responsable amay gis nañ sa taxawaay ak Bassirou boobu léegi yéen a ngi dugal monsieur le maire fu ne waaye mère solution nee naa leen waxoon naa leen que Salaam a ñëw solution ñëw moo fere solution bi. waaw amiin. coordination bi jaar na yoon. son the right place. station ak les femmes braves yi nga xam ne ñoo ñëw accompagné leen moom mooy Jeex moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo nekk fii sàngal ak gam bokk na ci pourtant porte bi dañuy continuer ah dañuy continuer di sàngal tam ba léegi am na tamit xam nga ba dégg ñooñu ñu sànq seen I think we can have something like that. Ndiaye. Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye maire moo ñu doon jaar nuyu imam kon a jaaroon nuyu imam moom il faut jaar nuyu imam imam moom yàlla def sàkku ñaan rek ñaan dal ñaan jàmm si réew mi lépp a jaar baax a baax a baax ñu rafetlu ne ah yàlla moom du ne maire moom a nekk ñoom baax a baax a baax ñaan rek xam nañ leen bu baax. ñu ngi sant di gërëm bu baax. di ñaan yàlla imaam de. na ko imaam Ndiaye. di ñaan yàlla aajo yi yàlla na ko yàlla faj. amiin taxawaay rafet kontaan nañ. ñaan yàlla ñu ngi sant borom. jàppale leen ñu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 تقبل لنا بيان الحاجات وافتح لنا شر من جنسيات وترفعنا بيان من الدرجات وتبارك لنا الحياة من جميع الحالات الحياة ويسمع يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ah kontaan nañ de. waaw waaw noonu la noonu la kontaan bi ñu kontaan mosuñu koo kontaan. parce que lii dafa rëy. dëgg la Pape Sow jóge fee suñu koñ. macha ñu suñu xol sedd na. macha allah ñu àndal bu demee carte bi ñu dem bu ànd ñun ñu jël. ay ca. Thank Bass dafa mat ah. non dañuy def nii dugg si délégué de quartier bi nekk fii. maire moo bëgg a bëgg benn délégué de quartier. benn benn délégué de quartier. waaw. wax si borom taabal ju lamb la ji. waaw. waaw. waaw. Mon Ndiaye yaa wóor kàccu ko délégué bi moo dem non bos yaa ngi jóg nag awa pause man awa pause tuuti pause ba dem Sangalkam ba dem Jaxiraat ah yaa ngi may gis Сегодня, сегодня. live bi parce que après noflaay lañ jëm bu ñu demee noflaay ñu jëlaat live bi booba léegi gis si soo léegi ñu wër bi Sangalkam wër nañ Sangalkam bi yëpp ak maire de la commune de Sangalkam waaw waaw di tasaare liggéey bi nga xamante ne nii moom la ñu Ousmane Sonko euh, teg si suñu loxo joxoon ñu jomaay jomaay président pour ñu jàppale ko coalition bi yëpp waaw jug takku taxaw ku nekk.